waaw waaw waaw waaw bojo bojo yee kemba yee waaw waaw waaw waaw bojo bojo yee kemba yee bojo bojo yee kemba yee waaw waaw waaw waaw meeting de clôture pendant deux semaines nous avons parcouru l'ensemble des cités et villages population am nañ ci ñun yaakaar population yi ñu ngi xaar ci ñun ñu continuer liggéey bi doon def suñu programme nag ñun dafa yomb comprendre mooy lan mooy liggéey suñu programme mooy liggéey mooy jële dëkk yi ci lëndëm yóbbu leen ci leer suñu programme mooy abri provisoire yi fi amoon ñu dindi ko te dindi nañ ko suñu programme mooy fexe ba voirie bi di dox nit ñi di dem di dikk suñu programme mooy toppatoo santé bi wér gu yaram suñu programme mooy toppatoo njàng mi toppatoo étudiants yi wutal leen fu ñu dëkk Dakar au cas où amuñu logement université wante suñu programme yooyu yëpp nag boo ko boolee dafa wékku ci benn programme muy le programme du président Macky Sall muy le programme du PSE plan Sénégal émergent Nous ñu décliné en plan Sangalkam émergent mani vous nous góorgóorloo ànd président Macky Sall fi nga que nous moom bëgg émergence Sénégal eh bien dinañ atteindre même avant 2035 atteindre émergence commune de Sangalkam dans les plus brefs délais suñu budget 2022, voté nañ ko un milliard huit cent quatre millions dëkk yëpp dëkk yëpp cité yëpp dinañ ci gis seen bopp ci prise en charge ci walu réalisation ak ci walu environnement ak amélioration cadre de vie ñun loolu mooy suñu liggéey moo tax le 23 janvier soreetul je suba la retiré ngeen sen carte am na ñoo xamni retirer, retiré bu ñu nañu dem retiré su ko ñu voté massivement suñu liste Benno Bokk yaakar et au soir de dimanche ñu mën proclamer ñu mën fêter suñu victoire pour nous de la commune de Sangalkam mais ñu dédié ko le président Macky Sall. victoire boobu moom lañ koy jox xamal ko ni askan wi moom la àndal ñun ñu ko fii représenté askan wi ñun lañu àndal mais ànd boobu dañ koy teg ci leer moo ñu liggéey dëkk yi relever les ba jafe-jafe yi nga xam ni am na ci dëkk yi ñu man koo dindi à partir de nos ressources de la commune de Sangalkam suñ ko mënul def ak ressources commune Sangalkam ñu tàllal suñu loxo ki nga xamni gudd guddi ak da fay fexe pour que Sénégal jëm kanam muy le président Macky Sall mu jappalé ñu te président mi ñuy jappalé président Macky Sall mi ngi jappalé Sénégal mi ngi jappalé département de Rufisque mi ngi jappalé commune de Sangalkam ndax bu yagul 26 km, le génnee de route dugal ko ci zone bële nga xamni moy la zone rattachée. muy tali bi jógee fi nga xamante ni mooy sédiment romb central Kounoune ñëw ba fi nga xamante ni mooy Keur Daouda Sarr mooy tali bi jóge Kounoune dem Kounoune galab mooy les 30 mètres de Fass Kounoune mooy également tali bi jaar ci biir ZAC de Kounoune mooy également tali bi jógee Kounoune dem ba cité enseignant mooy également tali bi jógee Medina Thioub wat c'était une vieille doléance de cette zone c'est définitivement réglé ensuite le date de Sangalkam plus de 6 milliards 700 président Maxal Sall ko fay def kokou day contribuer ci sur le plan agriculture xeyu ndaw 450 milliards de francs CFA 150 milliards par an département bu nek am nga sa quota ñun département am nañ suñu quota vous les jeunes vous le programme xëyu ndaw yi avec un jeune qui est avec vous mon Cheikh Gueye il faut vous orienter pour que vous ayez am financement financement des femmes la même chose avec la DRFJ nano crédit mi ngi dugg ci dëkk bi di dimbali nit ñi eh bien dañ leen ci orienter vous les femmes pour que ngeen ayez am des activités génératrices de revenus. Voilà donc pourquoi nous voterons massivement dimanche pour la coalition Benno pour que nous mën la commune de Sangalkam en tout une équipe dynamique nous mën réaliser tous nos grands projets. di vive la commune de Sangalkam vive le département de Rufus vive le Sénégal. Vive le président Macky Sall. En avant pour une victoire éclatante au 23 janvier 2022 dans le département de